man maa ngi tudd Ousmane Seynabou John nek enseignant professeur histoire géographie maire bi ngeen tuddu di Amy Ngom mom mo jur man maay tawam sama papa mo sos école bi mu implanté wu ci ay contexte bu difficile contexte bu difficile moy école privée amu fi won amna ñu ko fi essayé won te réussirul ñoo ngi sant yàlla naka njaboot gi ñu ngi fi jàmm rek. Oh, euh, en fait monsieur Dione parce que suma doom bi bi mu indi leen notes yi dama ko vérifier mm-hmm. mais après dama gis que ni niveau bi dafa baax trop. Mm-hmm. ah oui moom ban ban problème la am ci école bi. neexul ba neexul. sa doom euh, xaw njàng daal nekkul ci ndax jon buy jàngal xale bu xale ba mënutee jàng dina waaxu ba ca seen kër ne leen bu leen ma feete te téye seen doom fi mu jàng bu egsi mi jotaan bu dina ko ñàkk dina jàngalu kaamil dina uti sëriñ ndax xale yi gañe rek kooku yàlla moo koy fay waaye kenn mënu koo fay. at mi li nga ko fayal yëpp mu ngi xaalis bi. kii fayu école am la yow yaa ko moom. da nga ko fayaloon pour mu jàng pour mu réussir yàlla def na ni ñun biñ ko xoolee xam nañ ni kii mënu la dem aussi am na loo xam ne duñ ko lekk xaalis bi moo nekk si moom dina ma jafe torop ndax wax dëgg yàlla teg nañu ci yoon ya nga xamante ne daal euh, lu lu ku ñu sant ku ñu sant la ku ñu gërëm la tey na nga def si seen si seen xalé ya nga fa ana señ bi señ baa ngi fi waaw mi ngi sant yàlla bu baax ana mère da nga koo dégg maire bi dafa xaw a tawat moom laay waaj a seeti nii jaxaaw. ah nga yem jaxaaw laay waaj di waaw. Eh, la yal na yàlla fëgg boppam waay. amiin amiin amiin. c'est vrai que am na ay moments yi nga xamante ni métti woon na boobu je crois maa ngi doon def euh, CM2 euh, muy daal ay jaar-jaar yu doyoon waar. waa kay jërëjëf nañ ko dégg bu baax jërëjëf. John. naam naam. am lii maa la ko lebal ba ma yokk ko waaw na nag yàkkamtuwuma ah, waaye yow noo xamee ne man yoruma paas maay xam ne maay xam jafe-jafe nit rek maay xam jafe-jafe rek nga dimbale jabo joo xam ne jëkkër ba ngi luye te amul doole te mu ngi liggéey léegi-léeg ñu fay ko léegi duñ ko fay li ci xaw a métti rek du métti mooy sonn na ci école xeyna tay école bi dem na be commencé am fu mu tollu te fekke wu Ousmane fompal say rongañ te nga jox nga agali sa mébétu papa ndax mébétam mo dol yóbbu école bi fu sore sore te yow mi yaay relève bi moo gën sa jooy yi ku rigoureuse la woon et puis ku bëggoon daal ngay nekk exemple foo nekk gis naa résultat yi vraiment jàpp ngeen si école allah gis nañ ni ñu def fii si si gox bi ma ñëwoon di leen remercier waaw jërëjëf woy euh, entré yaa salaam li la bëggoon ndaxte xale bi sa moom jàngkat la loolu lañ bëggoon si moom am réussite totale moom jàngkat la ça va ça va vraiment ñoo leen remercier bu baax dama fa waxoon ma naa fa jaar pour remercier leen. merci beaucoup madame merci. ok merci beaucoup. ñu ne booy takk jabar na nga jabar ju baax ndax xam nga ni ku leen ngi xam ne ndey baax na. ça va naka Cité. Cité ngi rek. ba yaa ngi góorgóorlu. waaw maa ngi góorgóorlu baax. ah kon baax na. Ousmane kontaan naa trop. sa hmm. liggéey. wóor na ma sama papa moom fee mu xolam seet na trop si li nga def nii moom kontaan naa trop. di boo gisee. Hmm. sama yaay tax moo may jàppale di ma encouragé te yooyu ma lay wax fi nga nekk ci nga gën a góorgóorlu. ñun tey doom bu góor li ñuy xaar ci moom suñ culture doom ma wala sargal yaayam tey kenn warul gërëm waa TFM kenn warul gërëm waa Jumbo ñun doomu Ami Thioye Ngom ñun ñoo war a gërëm sant bu baax TFM.